le grand journaliste Pape Alé Niang mu ngi ci euh, ligne bi ah, Hadj Mansour bismillah baale waaw sëñ Mansour maa ngi lay maa ngi lay ziar bu baax a baax maa ngi ziar den masaw waaw jaajëf da nettali sànq euh, benn euh, mbir bu doy waar mooy ba ñuy samp seen TV mhm. ci taxawee mhm. ak li ngeen daajee seen première plateau émission mhm. mais fàttalikul tamit lu am solo dafa amoon benn élan bu amoon ci presse ñu tuddee woon état bi dàkkantalee ko le monstre. le monstre. tey nag monstre bi nga xam ne moom lañuy ñu jàkkaarloo. Mhm. c'est un monstre froid. Mhm. muy benn. Mhm. méchant. c'est un monstre froid. et ba tax na yow si boppam sax da ngay posé wu question pour ngay xam ne li ñuy dem nii sax gëmuñu ko. tey jii Mhm. tey jii laa la wax nii. Mhm. balaa midi. waaw bu nekkoon ne. Mhm. dem na rek d'accord ak ki nga xam ne moo di Macky Sall. waaw président de la république moom ci boppam mooy woote téléphone. ah. daway laissez-moi ce dossier là. kon xam nga buñ koy def. li ñu wax ne woy ay loi la ay texte la ay règlement la gëmuñu ci dara. dëgg la li am tam nekk dëgg. dañ ko wax tëddee. Mhm. Bougane a choisi lui de faire sa politique. en dehors de la mu créé. Mhm. la créé. Mhm. muy Sen TV Zik FM. yàlla te yàlla tax xam nga c'est la position de Bougane qui dérange. qui dérange. Uh-huh. maintenant fii nga xam ne lan war a waxee kilifa diine yi. Uh-huh. xam nga tax loolu. Uh-huh. kilifa diine bu takk nga Bougane. dëgg la. mais nag dañ leen wax da leen artu. parce que bés bu ñëwee boo leen du yéex. parce que nit mënut a nekk fii yor réew mi. sénégalais yi seet bi lañ nga nekk njiitum réew mhm. parce que xam nga wax ji buñ ko ragal mhm. parce que tey jii bu wax dañuy wax ne c'est euh, mu neex ko mu naq que c'est sous le régime de Macky Sall que lii xewee dëgg la donc yow ñu seet la ci nga nekk ci dix-sept millions sénégalais jiite mhm. ñu sàkku ci yow yërmande di fënatal man na ma wax na ma groupe de presse yi ànd ak moom yëpp nga xam ne ñoom dañ leen di gis ci meeting am. Mhm. leen di gis ci ay tournées ils sont en règle avec le amul amul. dama ne dama ne est-ce que moom mën na génne ay preuves palpables. mënuñu ko ñëpp ils sont en règle. ko maa leen ko. muy benn ñaareel ba pare tamit nag ñaata teraanga la leen defal. Hmm, kenn mënu ko xam. kenn mënu koo xayma. yéen conflit d'intérêt manifeste di am. Mhm. collision di am manifeste ñëpp di ko gis. Mhm. ñu ne noonu la ñu réew mi d'accord naa ne yàlla moo joxe nguur. Mhm. loolu d'accord naa ko. mais est-ce que yàlla dafa ne bu joxee nguur ba pare dafa génn aaya boo xam ne dañ ne bu joxee nguur ba pare ki yor nguur dafa war noot askanam. lu ko neex def dafa leen war a bundu xatal. lu ko neex def ku àndul ak moom ah. te euh, daf ko war a faagaagal man damaa bëgg ñu génneel maa parce que lu sax may wax loolu. Mhm. bés dina ñëw fii. Mhm. ñaanuñu ko yàlla lu gën a garaaw xew. Mhm. nit ñi génn def loo xam ne kenn du ko ñaan yàlla. nga ñaan leen njëkk ñu fëratal la ne la ah yow da ngaa fàtte ne yow bés bu ñu doon toroxal da seetaanoon. Hmm. da seetaanoon. parce lii. xam nga le président Macky Sall c'est un homme déterminé xam nga li déterminé mooy lan. Mhm. même boo xamee ne il va tout droit au mur il va y aller. Mhm. parce que foog na lu ko neex mu def. Mhm. te dara du ko ci topp. du ko ci fekk te parce que aujourd'hui mais dama la wax ne dégg naa Abdoulaye Daouda Diallo muy expliquer ci affaire euh, euh, redressement fiscal bu bu. mën na ko waaw Abdoulaye boo waxee ci loolu ba pare am na aali kalla joo xam ne yaa ko def ndax taw bii. Mhm. ci suuf Assane Diouf. waaw IAD. Mhm. Esat Assane Diouf. waaw IAD. Mhm. loolu yëpp yaa ngi ko jël ñu jox ko chinois yi. ma taxawoon génne leen papier yi ngeen ko joxe chinois yëpp ngeen xam ne da ngeen ko bazardé ak scandale financier bi nga xam ne mi nga ci biir. ci conflit d'intérêt. Mhm. donc moo tax ma wax ne réew mi nañ ko tegaat ci ñuy wax dëgg te yàlla tax. te tax c'est important parce que lii ñuy def nii man dama jégg ba si yàgg ma ne yenn yi ak soxor la c'est de la méchanceté gratuite. Mhm. léegi lan lay yokku ci état wu Sénégal lan lay buñ may wax ay affaire redressement fiscal ak exonération ñaata société ñoom lañ fi nekk nekk ak société yooyu te duñ def ex di la defalee exonération fiscale. kenn xamul lu ñu toll. <laughs> bari nañu. ñu fi ñëw. bari nañu. ñaata société étrangère ñoo fi ñëw dugg fi ci réew mi defuñu leen exonération euh, financière ñu def lu leen neex. Mhm. di dugal mhm. lu leen neex ci réew mi donc je pense que il est temps que chacun prenne ses responsabilités mais ci loolu nag dama leen di wax des médias waaw. bu nekkee presse bi ngeen yaakaar di ngeen ci wéet. dëgg la. que dama leen di wax nañu waxante dëgg. non dëgg la. dëgg la Baye Allé. bu nekkee ne presse da ngeen ci yaakaar. da ngeen ci wéet. dëgg la dëgg la waaw la presse est caporalisée. tout à fait. la presse est caporalisée. tu parfaitement raison. au contraire dañuy wax ne oui il n'a qu'à payer wala yooyu or taawu Abdoulaye Wade gis na ne ñun ñëpp dañoo manqué woon gis nga dañuy wax rek mais ba ñuy convention jeune reporter la première marche que des journalistes organisée ñun la woon. waaw. ñun la woon. pour la libération dama ñun la woon donc le combat a toujours existé. Mhm. bañ ko toogee di ko wax patron de presse yi dañ la waxoon ne journaliste de marche ñu ne leen ñun ñoo koy organisé. waaw mu nekk une réussite. ñu libéré Madiambal Diagne taw donc je vous dis que gis nga boo leen xoolee fi mu nekk nii ce mooy presse bi dafa mel ni dañuy yàq sax ñu éliminer kenn. ñu éliminer kenn ñoom. dafa mel ni éliminer kenn mooy tax ñu dund. dëgg la waaw dañ ko yàkkamti. tout à fait te nag kaay ma wax de. loo xam mhm. daal nga yuuxu. leen daal laa leen wax mooy. Mhm. soyez solidaire. surtout surtout au niveau de truc. bañ a bañ foo quoi. ñu mhm. koy fajar ñu ñoom mm-hmm. dañuy foog ne ay télé ak i rajo mooy tax nit ñi di la dégg. non non Sénégalais di la dégg forcément. non non. ba ñu tëjee seen seen télévision YouTube bi noo leen ci def. dox ba mu doxal eh, da ngeen fàtte woon da tëj leen seen télé. dañu ko fàtte sax dëggantaan. il faut mener le combat. il faut mener le combat. surtout lépp li ngeen war a def def leen ko c'est mm-hmm. un ça. c'est ça mm-hmm. parce que gis nga. voilà maa leen di sant di leen masawu bu baax a baax a baax. merci beaucoup li nga xam ne am na. neexul kenn tey ji ci fajar bi. ñu mhm. dégg ñu ñuy wax ay da bu ñu duggoon DG yi de xanaa mbóot yi fa nekk dëkk bi ta dëgg la. mais nag dama ne ñu war a wax nañu wax artu président na ko du nii. Mhm. réew mi warut mun a demee nii. parce que moom rek mooy ne fii c'est la seule personne qui décide. waaw ah la wax leneen day wax lu ko naqar. moom dong mooy décidé. mais damay wax ne c'est la <laughs> mu jël Casamance eh, ce dossier là c'est fini. Hmm. c'est lui qui le waaw donc c'est l'unique personne boo xam ne aujourd'hui moo am doole décider. c'est parce que day wax ne day c'est de la nécessité dañuy wax ne oui ces gosses là da leen yar quoi. Ah. comme ça qu'ils pour le Sénégal. c'est malheureux